pour kaana aduwal li ci biir ak na ci ibnu Suriya kenn ci seen boo déggee woon nga bokkoon dafa ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama am ay laaj yu ma noon na yonent bi ñëw ci mu jëm jamono rek ne ko laajal mu ne ko naka ngay nelawee yonent ne ko sama ñaari bët dinañ nelaw mu ne ko wax nga waaw lu tax doom ay jamono mu ñëw ñu ngi bàyyamati ay bay taxam doo ca gis dara lu ñuy du kër ndeyam ñu ngi doom ji ñëw niru ndeyam ak ay na jaayam te dem waaw luy niru kër baayam du ca nekk luy loolu yonent ne ko ñuy booloo képp ku jëkk a wasal ci mujj a wasal ndax am féete kaw kooku nag kookoy jël niróo bi mu ne ko wax nga dëgg ne ko waaw ban ñam la yàqoo ba xaraamaloon ci boppam yonent ne yéen mboolem yahut maa ngi leen di génnee ci yàlla ci wàcce tawreet ci Muusa sa tojal leen jax nga musal leen ci Firawna ndax xam ngeen ne Yaakooba dafa woppoo nopp ji métti de bëgg dee mu ngi sër ne suma yàlla saafara ci sama opp jile yàpp mi ma gën a bëgg ci yàpp mooy yàpp gëlëm danaa ko bàyyi dootuma ko lekk soow mi ma gën a bëgg ci soow mooy soowam gëlëm dootuma ko naan yàlla saafara ko mu mu ngay seni sër jooja loolu tax mu bañ a lekk yàpp gëlëm ak soowam gëlëm ngeen ngeen topp ci diine Ibrahima la bokk ñu ko wax nga dëgg waaw anam yàlla ganale julli ñi buñ demee aljana saaba jum leen di jëkk dalal dalal refu refu jën nga xam ne moyeenu suuf gisóor yaa ne ko wax nga dëgg def nag leen ban malaaka mooy wàcce ci yow wayu ko jibril accam loolu yàq na yëpp nag jibril moom mooy suñ noonu ñun duñ gëm diine ñoo xam ne jibi la ko indi mukk suñ noonu la Omar ibn Khattab ne leen kañ la noona ji tàmbali ñu ne ko ba nga xamee ne moom lañ bayti maqadis benn xaleel juddu ñu ne ñu kii moo fa soo rappal seen nguur ñu bëgg ko rey Jibril xaat ko nañu bu leen ko rey soppe ko waaye nañu kii bu fekkee ni yàlla ndogal na moo fa soratal baytul maqdis ngeen ko mën a rey su fekkee du moom nag bu leen bu leen tooñ jàmbur ba tax ñu bàyyi ko ba mu màggee mooy buxtu nasar ñëw ratal baytul baytul maqdis ñun waaw yàq fi nguur ci lañ jëlee torox baana ñu nekk ba léegi waaw loolu lañ bañ a jibril Omar ne leen waaw jibril nam demee ci yàlla bu ne leen waaw kañ ngeen bëgg rek ñu ne ko Mikaayil mooy suñu xarit ñu kaay ci li wër sëñ waaw kay foofu ne bu fekkee ne wéy daal ñun pare nañ pour gëm waaye bu dee jibir bu ngeen xam Omar leen jibir nag ñu kaay nañ ne ko jibir moo nekk lay yoral yàlla ñu Omar ne su fekkee noonu la demee nekk noonu ak rek nekk noonu ak ñu kaay nekk nekk noonu ak yàlla itam laay ñu daal di rek dëggal li nga ne Omar wax na ko Omar am na fukki yëpp ak benn yoo xam ne lu ci naan daf ko wax rek ay ñoo ko ñu ne daal ñoom ci ñu lay seen ne xul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa man kaana ku nekk nagu addu wandi noon li jibri la ñeel jibril na dee ak meram de ne leen xam ne dangay nooru jibril na nga dee ak sa sa sa sa mer du faju mukk de tey na woon naka moom Jibril na solo wàcc na mu ko ala xam ci xam sa di jaay ci ndigalal yàlla Jibril mooy xala indi di ko wàcce ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ci ndigalal yàlla bu saddiqan alquran bi mu aji dëggal bi ma bay na yaa day la nekkoon ci jëkkam ci téere o danta dim ci kër ci réer o bu saata di dëggal bi moom ñu ñëw ay jëmm daal di indi nag ñu dëgg wax yow Omar man kaana ku nekk na mu addu wan di noonu laay ñeel yàlla teg ñëwoon noonu Jibril lañ yàlla ne ku nekk di noonu yàlla ci noonu jullit yi dañ daal di nekk noonu yàlla wa malaayikati ak ci malaakaam nekk noonu malaaka yi yëpp wa rusuli yi ak ci yonentam nekk noonu mboolem yonent yi wa jibril ak jibril nekk it noonu jibril wa mikaayil ak mikaayil nekk it noonu mikaayil mi wax ne mooy seen xarit la mun kafirina ñeel way di ñu de ku noonu ñunu man yàlla itam noonu naa la ba faw jibril sangam maraaka yi moom la yàlla boobu ci boobu ci moom yonent bu nekk moo wàcc ci moom téere jibir mu màgg moo ñu nag léegi doon na nekk doomu aadama de ñu juróom ñaari yëpp jibir mu ne bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy julli ci mbooloo mu ne bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy teew ci jotaay borom xam-xam bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy defar diggante ñu ngaayoo bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy teral jibir bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy suñu tàbbal jullit bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy seeti ku feebar bëggoon naa nekk doomu aadama ndax muy gasi seen yi ñu di seen naan rek rek juróom yaari yëf yi ngëneel yi lamboo tax na jullit sax bëggoon na nekk doomu aadama ñu xewal bàyyi place am ñëw nekk kenn ci ñun de